lu rëy la dee doon kon nga am fukki at GRTS nga am benn at GRTS euh, boo tax boo gisee GRTS tax euh, mu doon lu mu doon kon dañoo wax ne ñëpp ñoo ci bokka euh, moo xam da nga fi am fukki at moo xam da nga fi am ah, benn fa léegi yooyu tamit ma bàyyi la nga wax ma kañ nga ñëw GRTS waa jërëjëf Angou Tidiane GRTS maa fi ñëw July July laa fi ñëw so right now am naa fi six months. nga fi six waaw seen liggéey bu rafet na. Mm. job bi nee na easy na. ok météo tamit. métiwul déedéet métiwul non kon yow da nga liggéey bi moo tax nga ne métiwul waaw métiwul métiwul ok loo pare pour def la doo ne wax ne doo wax soo da da nga am pare pour def ko mhm. da nga wax ne métiwul dafa métti ak yow soo da ko def like simple rek ok lu yomb da nga ko def xam nga am ah, liggéey GRTS mhm. boo ko seetee am ah, amut amut comme time yi wàcca parce que loolu dafa dafa dafa dafa am solo rawatina nag su fekkee ne yaa ngi sëy nga am ay say doom xam nga ñuy am ay programme comme comme ni ki ëllëg nga xam ne dañ fee nekk moom ba ba ba allah xam nga nga war a bàyyi njaboot bi ci ginnaaw war a bàyyi alaaji bi ak yooyu noonu yooyu yaa ngi sëy man ah. <laughs> xam naa sa bos moom. waaw daf la sori. <laughs> daf ma sori waaye njaboot yaa ngi fi. waaye njaboot yaa ngi fi lu mel noonu naka nga ko dee dundee naka nga dee mun a balance sa liggéey ak sa domestique euh, Uh, work ma nekk si man loolu uh, difficult mhm. parce que maa ngi am ku maa jàppale bu baax mhm. mooy suma yaay man pour nit gis ma sax foog ne am naa doom eh, yombut namoo dara <laughs> non wax ko na nga ne namoo dara yëpp suma yaay moo ma dee jàppale si xale yi uh-huh. waaw sant naa yàlla torop bu baax soo mu ngi mel ni kon loolu um, géttanut la si sa biir liggéey lool déedéet allah di nga mun a ñëw liggéey nu mu demee xale yi tamit boo ñëwee mm. liggéey sa xel dina dal ndaxte am na ki nga xam ne uh, moom moo nekk sa gannaaw di la mm. jàppale uh, mu doon loo xam ne lu am solo la mm. uh, damay ñëwaat ci yow lu tax nga taamu GRTS ndax bu la neexoon munoon ngaa jël leneen waaye yow lii nga tànnane lii nga bëgg a def pour nekk a production secretary nga duggee loolu biir GRTS lan lan moo la motivé lu ma motivé mooy mhm. seen dama gis seen liggéey rafet na te man gambien la te dama am pour liggéey waa gambien si moo tax ma ñëw GRTS fii nga ne am nga ci cër gu rëy boo xam ne lum bon bon lum tuuti tuuti yow it mun nga ko ci mun nga ci ak yooyu bi lan moo la gën a naqari si sa liggéey suma liggéey. waaw non gis ma si naxari. <laughs> dara naxari ah. ma si déedéet. ay nekk ci këyit yu du jeex di wëlbatiku di dikki loolu naxariwul la ci. neex na neex na torop neex na <laughs> neex na <laughs> loolu nekk lu am solo mhm. ba tey rek ah, mbokk yi ñu fàttali na ngeen a ñoo toppa suñu programme yi ngoonal fii si GRTS comme ni ma leen ko waxee ah, dalal ñi nga xam ne ñoom ñooy suñ production secretaries yi comme tey nag ah, affaire bi yëpp foo rek ñu ree ñu waxtaan te waxoon naa leen ne balaa ñoo taal caméra yi seen kaw mhm. di ngeen mam di ngeen maye. <laughs> waaw kon jéem leen koo xalaataat ak yooyu noonu wi ni damay ñëw ci yow. ndaxte yow dañ gis ne um, you start as a production uh, secretary ak yooyu noonu. Mm-hmm. ñu jékki-jékki rek xëy rek gis la ne nga ne fan nga ne wanga ci télé gi di def ñu somari ay ay bagage yooyu noonu. Mm-hmm. mu doon transition boo xam ne lu ko waral. daf la neex rek da nga bëgg a siiw moo tax nga ñëw pour feeñ def news reading oo da nga fiil ne da nga am the capacity xëy war nga mun a def loo waxal. lu mel ni loolu de sant yàlla ba mbari hmm. parce que soo gisee ne am nga dat uh, capacity am nga dat knowledge. Hmm. boo xam ne you can do more than just being a product production secretary. Hmm. why not go for it. nga dem yeah just uh, pull develop pour daf laa dimbali. pour nga develop sa bop nga upgrade sa bopp. ba pare tamit yaa ngi contribute mm-hmm. a quarter to the development of your nation mm-hmm. development of GRTS. so moo taxoon ma waaw parce que li nga wax nii loolu dafa am solo trop. Mm. Ah, dama faral di wax ni GRTS is just like a university. Mm-hmm. Um, si lo bëgg japp rek. si loo foo xam ne foofu nga teg sa bët foofu nga teg sa loxo mhm. boo buggee rek incha allah nga farlu ci mhm. parce que loolu tamit am na ci solo fa faaw rek nga farlu ci bu boobaa rek di nga gis mhm. ñëpp dañ laay bama gis nga man bi ma bi maay ñëw télévision gëmu ma woon ne sax ne comme dinaa mën a toog fii di karang karang ak karang waaye loo xam ne dama gëm ne war naa koo mën a def ma am ñu nekk sama gannaaw ñu bamax ma ba tey alhamdulilah maa ngi maa ngi jàng ba tey Ah, te yaakaar naa ni war naa gën a mun a yokku parce que jàng moom xam-xam du doy. mu nekk loo xam ne lu am solo la. Ah, bi nga duggee si affaire yi ab news bii nii ah, loo loo loo ci yëg news reading sa first time nga nga def sa news summary lan nga yëgoon biñ taalee caméra yeeg jox la microphone beeg yooyu noonu. da nga doon lox. I was scared. <laughs> da nga doon lox. Yeah, I was scared. Why I knew within me that muna ko def. Why time tamit xam nga boo ñëwee def sa first time just new lagi ni on on TV. Mm-hmm. The whole world new lagi. Mm-hmm. Just just something else. But I knew inside of me ne Muna naa ko. mun nga dafa am li taxoon garagal. something was at the back of your mind. waaw ne bëgguma make mistake. Uh-huh. après xam nga nit ñaa ngi <laughs> mistake boobu soo ko defee nit ñi suñ la gisee outside na ne waa kii moom. non <laughs> wax ko rek dafa stupide <laughs> parce que gars yi dañ ci gaaw mun ngaa dëpp yéen kii mënu dara wala ñu ne xaay kii moom mënu riid xool ko nu mu riidee xoolal nu mu méga bu ol xoolal nu mu solo waaw xam nga yooyu def si dee bokka am na ñoo xam dañ nekk si biti pour criticiser rek yaa xam ne kii rek damit la waaw moo tax moo tax nag loolu fa nekk waaw moo tax liggéey télévision dafa métti dafa métti parce que boo juumee rek ñoom ah, du ñu mun a seet xam nga tey mun ngaa def lu baax fukki at parce que media moo mel noonu. mu am bés boo xam ne nga def loo xam ne naka ci du noonu. ah duñ gis fukki at bi lu baax la nga def keroog la nga def te jaaduwut <laughs> mm. ñëpp fa la ñoo teg seen bët parce que boobu bokk na si challenge télévision loo xam ne tamit ah, ñu ñëpp dañ ko dee dunda mm-hmm. waaye mu doon loo xam ne tamit ah, boo ko dundee da nga koy teg sa gannaaw nga dal di continuer parce que loolu mooy mbiri télévision hmm? siw neexut de neexut moom siw <laughs> way siwa ah xaaral bi ngeen duggee bi ci biir a biir si ngeen a xam ne laaj leen awa ñu lan mooy siiw <laughs> du jaami boroom de woykat bi waxoon <laughs> parce que foo ne tër rek gars yi ne wa winee ngoog ci jaana ngoog awa ngoog diwaanu ngoog ak yee noonu mm. si njëlbeen bi xam nga ma wax leen leena lu ci nekk mm. waaw fi mooy ngoonal lu nekk la ñuy wax <laughs> gis na si njëlbeen bi daf la di neex bay jos door a mm. parce que foo génn rek tijaan oncle ti yaa ngi nice yaa ngi kii xam nga rek nga boole ci xajaat bi waaye dafa am fu ma buñ la di ñëw rek fekk ak ut nga foo laaxoo waaye si wal metti ah mu am ci solo trop trop comme naa xam naa fu mu nekk nii ba tey maa ngi am yeneen gan yi ma ah, dalal programme bi mu am leen rek luma ma laaj ma bëggoon nga tënkal ma ko ci nu mu production secretary lan la umba maanaam boo ñëwee suba balaa ngaa wàcc mhm. lan la ëmba. soo ñëwee suba. waaw. di nga type comme like local news bi. Mhm. soo fa jógee nga dugal préambule si. mooy reporter si dañoo dem. ñu ñëw jox la préambule. nga mhm. ñëw type ko. Mhm. dugal gaa si computer bi. kuy ñëw edit mu edit ko. after soo jógee foofu nga dem def sa booking si. sa booking si. waaw si mooy maanaam ñi nga xam ne dañ dee binda GRTS ne dañ bugg a coverage. programme ak yooyu noonu. Mhm. after nga binda nga jox suñu boss Francis. moom a ko faa dem. after nga call kooku noonu. ëllëg si suba moom mu dem. pour make sure ne mu ngi am booking ak yooyu noonu. loolu yëpp dafa bokk si sa liggéey. waaw ak screw news bi tamit. beneen affaire boobu tamit. parce que loolu tamit am na ci solo wini. Mm-hmm. Um, dañoo gis rek ah, ki nga xam ne moom mooy read news mu toog rek. di xool tali tali tali tali tali waaye dafa fekk production secretary bi moo toog. ci computer di ko dimbale. ñoo binda bi di ñëw muy dem nice. waaw boo jékki-jékki woon rek nga mistake rek dawal rek affaire yaxanga yëpp da ngaa confuse sax kuy read bi. ah bu nag maye leen nag ñu tàggatoo ayca commencé. dafa amoon benn jigéen bu jóge woon dëkk bu ñëw Fatick sénégalais la. Mhm. góor bi muy dëkk fii Kanifing ñëwee mu ne bëgg wax xale bu jigéen bi nga Sénégal dañ dee mindi yaa ngi son. yaa ngi son moom mu ne xale bu jigéen yaa ngi zone. <laughs> <laughs> yaa ma gën a zone neex na meex na meex na <laughs> ñooñu fu ñoo mujje ñooñu fu mujje ak zone bi billahi de <laughs> yow daal foog nga bàyyi ko foofu laa bàyyi ko wi daaj ma benn eh, man nag maa baal parce que man hmm? man mënuma mee mooy suma waaye mun ngaa ree mee waaw mun naa ko ree moom